bokk yi ni teewlu si Seneweb TV seneweb point com ak Seneweb rajo amati leen mbégte di janoog yéen euh, tey ji euh, tolluwaay dañuy waxtaan si lu am solo si lépp loo xam dafa jëm si wàllum euh, mbatit Euh, wala bokk euh, culture comme ni ngeen ko euh, gën a xamee wax tamit si ay moomeel yoo xam te ni Afrique moom moo ko moom si wàllum patrimoine ak yeneen mbir yoo xam ne nii dafay soxal démb Afrique waaye nekk nu ay doomu Afrique yi nga moom la ñu doon pour waxtaan ak ponk yi ak yeneen yi nga xam ñoom ñoo si làmbool ñu ngi dalal ñu ngi dalal tey jii Sali Alassane Thiam nekk benn doomu Sénégal wante ni moom mooy jiital ONG patrimoine Afrique patrimoine nekk benn ONG boo xam ne da ko accrédité mbootaay xeet yi di Nations Unies ñoom mbégte lool euh, dalal ko ci suñu plateau Alassane maa ngi maa ngi lay delloo jaar Diallo. voilà donc euh, plaisir la pour me recevoir la mais euh, dañuy balaa ñu xuusandi dañuy ñëwaat tuuti si ONG bi nga xam te ni moom nga jiite. Mm-hmm. di Afrique Patrimoine nekk mm-hmm. benn ONG comme ni ma ko waxee sànq boobu tamit da nga ko accrédité sa mm-hmm. nekk membre yi tamit conseil euh, économique bu Nations Unies. conseil économique social bu Nations Unies. tey jii ndax mun nga ñëwaat si ONG boobu lan moo ko tax a jóg. waaw ONG boobu ñoo ngi ko créé en 1975 c'est-à-dire ci lañ ko créé. ONG boobu reconnaître nañ ko gouvernement Sénégal reconnaître ko en tant que ONG internationale non gouvernementale bi nga xamante ne nii am na pàcc ci àdduna bi yëpp reconnaître nañ ko ONG bi liggéey mooy tey dooleel culture africaine. kon yow ONG bi ngay jiite jamono ji moo la mag. ONG bi may jiite moo ma mag bi ñu koy créé juddooguma. d'accord léegi moom liggéey na depuis 1975 ak UNESCO pour dooleel patrimoine africain pour xool suñuy tabax ak suñuy nan la ñuy fexe ba dooleel ko préserver ko. Mhm. loolu d'ailleurs suñu charte charte bi nga xamante ne mooy. Euh, régir lépp li nga xamante ne nii mooy patrimoine ci Afrique ñun ONG boobu noonu ci charte boobu noonu la ñuy la ñu la ñu ci la ñuy liggéey. Hmm. donc ci li charte bu wax la ñuy liggéey donc tey loolu moo tax ñu liggéey nañ ci Afrique lu bëri liggéey nañ dans le cadre de la coopération internationale en Indonésie liggéey nañ ci Haïti liggéey nañ Mali. Hmm. liggéey nañu Niger wala tax Afrique ak international yëpp liggéey nañ ci. wax nga si li ko tax a jóg mais à l'origine kam moo ko sosoon ndax Union africaine la wala ndax bànqaas bu bànqaasoo euh, bi bi ñu koy bi nga xamante ne nii architecte des monuments historiques moo ko créé c' est un haut mhm. jooju noonu c' UNESCO UNESCO ci boppam moo ko proposé assemblée générale Nations Unies. ci lañ ko adopté en 1900 euh, parce que amoon na lu ñu woowee décennie du décennie mondiale culturelle. 88 mhm. 97. Mhm. ci la xool ci àdduna bi nan la ñuy fexe ba dooleel culture ci Afrique ci la ñuy créé ONG bi UNESCO moo ko proposé assemblée générale Nations Unies siège bi moo ngi nekk fii ci Dakar ci Mermoz mais am nañu bureau ci Nations Unies bu Genève ak bu New York. loolu tax ñeent ñeent ñeent at yu nekk dañuy présenter li ñu xamante ni ñu koy woowee rapport quadriennal pour parce que ñun ñooy gëtu. ak nopp Nations Unies pour wax ko li xew ci région yi nga xamante ni ñun foofu la ñu toll. li xew si wàllu aada li xew ci wàllu ci wàllu aada li xew ci wàllu problématique nañ la ñuy fexe ba dooleel suñu cosaan na la ñuy fexeel ba lan mooy causer problème pour que Afrique tey dégguñu ko ci culture am ak culture am nu mu amee doole ak nu mu riche lu tax tey Afrique jëlul envol lu tax décollé wul ci mm-hmm. mbàllu culture. moo tax bu ñuy wax euh, Sénégal euh, ak UNESCO bi nga xam te ni liste yu patrimoine euh, classé yi ñoom ñoo koy moom moo koy moom moo koy moom moo koy peg maanaam moo koy gérer. Mhm. am nañ si histoire ndaxte kii di président Amadou Mahtar Mbow. Mhm. nekkoon na directeur général bu UNESCO. Mhm. waaye lan moo tax boo léegi Sénégal. donte ne xam ne ne dëkk bu am solo la si wàllum batit mais fi ñu ko war a fi mu war a tegu dëggantaan si wàllum patrimoine ak tamit ay objet nan la koy sàmmeeg yooyu àggugul fa mu war a àgg la moo a lool loolu boo xoolee ci Afrique du du Sénégal kese Afrique ñëpp tey UNESCO bi nga xamante ne nii mooy euh, comme ni ñu koy woowee ci nasaraan mooy le bras mooy loxo bu intellectuel bu système des Nations Unies. Mhm. moo war a jàppale état africain yi ngir nu ñu fexe ba am autosuffisance boobu noonu ni duñu fexe ba développer ci ci ci ci anam boobu noonu. léegi dafa am li ñuy woowee euh, benn convention convention du patrimoine euh, de la protection du patrimoine culturel. Mhm. moom 193 pays yi nekk ci UNESCO yëpp ratifié nañ convention boobu noonu. léegi état yi ñoom ñëpp tolloo. ci ci niveau UNESCO parce que ñëpp dañuy voté pour euh, pour élire le mm-hmm. directeur de l'UNESCO. ku ku ne benn voix nga am. Mm-hmm. tey ñoom bu ñu buggee euh, je veux dire euh, ñu classé benn patrimoine patrimoine bi nga xamante ne tey àdduna bi wërngal këpp amul fenn fu mu am fu dul Sénégal wala fu dul Afrique wala fu dul feneen ak feneen ak feneen ak feneen li ñu war a def mooy dañuy UNESCO ah ñun de am na benn patrimoine bi nga xamante ne nii saytu nañ ko si suñu dëkk bëgg nañ ñu classé ko. bëgg nañ ñu classé ko ci liste patrimoine mondial boobu waxee UNESCO ba pare dañu war a wan ne UNESCO ni mën nañu site boobu noonu. Mhm. ñaari mbir yooyu kese mooy tax ñu classé. site ah, au niveau de ñaari critères yooyu kese la. léegi UNESCO dafay ne dëkk africain yéen euh, amoo leen xam-xam noonu. dañuy tuutal daal. mais mais tamit UNESCO ndax ah. waxul dëgg si benn fànn. Hmm. parce que mën naa jël misaal si marché Sandaga par ah. exemple. bi ñu koy defaraat war ko maabal defaraat ko loolu hmm. bokkoon na si débat hmm. euh, ndax dañ ko war a màbbal carrément defaraat ko wala ndax dañoo war a euh, maintenir architecture bi defaraat ko. loolu noonu tamit bu ñu koy xool est-ce que du jox dëgg ku mel ni UNESCO. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga jàllu parce que tey euh, UNESCO mënut a am dëgg ci loolu marché Sandaga bi c'est un exemple mais tey man je Euh, joxe benn vision d'ensemble ci Afrique yëpp. Mhm. bu fekkee ñaari mbir yooyu kese dama lay jox ay chiffres yu wane ni euh, ñoom tey war nañu gën a xoolaat war nañu gën a saytu li nga xamante ne moom la ñu wax ci Afrique moo tax Afrique décollé wul tey dafa am li nga xamante ne nii dëkk bi ëpp patrimoine bi nga xam ne classé nañu ko ci UNESCO Afrique du Sud la Afrique du Sud am na si fukk. Mhm. Égypte bi nga xamante ne nii li mu riche ci histoire ak ni ñu ko xamee ak yëpp. Mhm. nee nañu Égypte tey juróom-ñetti site kese la am bi ñu classé ci UNESCO. xanaa moom moo topp ci Afrique du Sud. moo topp ci Afrique du Sud après Sénégal moo am juróom juróom-ñaar patrimoine yi ñu classé ci UNESCO léegi xam nga loolu lu mhm. li nga xamante ni dëkk Italie am 58 euh, patrimoine yi ñu ren jii rek boo jëlee ren jii ci 2021 bi Afrique wërngal këpp ñaari patrimoine kese la am yu ñu classé ci a problème c'est-à-dire que aujourd'hui il faut que ñun pays africains yi ñu rassemblé wu. waxtaan daje autour d'une table jéem a trouver solution ci loolu. loolu sax les chiffres globaux daf koy daf koy daf koy refléter parfaitement. Mhm. suñu waxtaan rek yaa may xibaar ne que au niveau mondial. Mhm. Euh, patrimoine. voilà patrimoine ko ne te Sénégal euh, te Afrique mi ngi ci ay booru 106. 106 ce qui fait moo ngi loolu moo ñu jox benn taux de à peu près 9 pour cent xam nga loolu ndaw na lool te tey bu fekkee rek boo demee Sénégal tey fépp foo dem foo dem ñun sax xamuñu suñu mhm. bi. loolu bëri na ci Afrique fépp donc tey li ñu war a def mooy pays africains yi fexe organiser wu te loolu am na solution yi nga xamante ne ni proposé nañ ko état yi proposé nañ ko fépp ci àdduna bi ngir ñu fexe xool nu ñu réfléchir pour que gars yi génn ci loolu parce que gis nga patrimoine yooyu ñu classé du benn liste rek bu ñuy classé nii liste la bi nga xamante ne nii boo xoolee tey ay Paris ay New York dëkk yi gën a mag ci àdduna lu tax ñu ëpp ñu touriste te dëkk yooyu tourisme moo leen doole sax dinañ ñëw si waaw dinañ ñëw ci euh, aspect économique euh, aspect économique mais côté boobu am solo mm, waaw dinañ si ñëw mais euh, am na tamit ay blocage bu nekkee mm-hmm. mën naa ko tuddee noonu mm-hmm. moom mooy d' abord est ce que Afrique am na ay makaan yoo xam ne nii mm-hmm. dafa adapté si yor wàllum patrimoine yi di ko sàmm sur le temps loolu tam benn wàll la beneen tam mooy Euh, yoon ba ñuy jaar. Mhm. Euh, pour ne ah objet bi kat wala boog mbir mi kat. patrimoine bi patrimoine bu am solo bëgg naa ko ñu classé ko. Mhm. yoon ba ñuy jaar mhm. procédure ak nangam. foofu noonu tam est-ce que Afrique mi ngi jaar si yoon ba mu war a jaar ba àgg ca. Afrique ba mu ca jaar c'est que c'est que tey li xew mooy euh, tey dëkk yi am dañu am yenn priorité yi nga xamante ne dañuy ne ah éducation bi kat war nañ cee ñun tey priorité la. lekk bi priorité la. c'est des pays extrêmement mais loolu warta tax ni culture bi parce que gis nga culture dafa am lu am dafa dafa dafa doon lu am solo ci doomu aadama parce que moom mooy tax doomu aadama yi xam moom fa mu jógee tey par exemple boo xoolee quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze pour cent de ñun suñuy objet culturel yu suñuy maam defar moo ngi ci musée tubaab yi xam nga loolu tey dafa doon dara loo xamante ni ñëpp ngi dem ci àdduna yi pour xooli ko foofu te mhm. alors que ñun ñoo ko moom léegi ñun li ñu wax mooy loolu bu ñu ko delloowee ci Afrique le fait ñu ñuy wax ay amuñu amuñu ay yooyu yooyu yooyu du wax yu taxaw parce que boo xoolee ñun tey mën nañu defar ay infrastructure bu dee infrastructure kese kese la tey Afrique mën na kaa defar foo dem ci capital am na musée de civilisation bi nga xamante nii c'est c'est musée bi ne nii amul dara yu ko yeneen musée ci àdduna bi ëppale musée bu bu bu bu vraiment bu rafet la bu méngoog jamono bi nga xamante ne nii yooyu mën nañ ci def yeneen ak yeneen ak yeneen léegi kay li ñu wax a fexe ba def mooy ñu xool nañu waxtaanee te ci waxtaan boobu noonu si la ñuy fexe ba suñuy partenaire financier ak technique mooy dëkk euh, tugal yooyu dañuy mm-hmm. fexe xool na la ñuy fexe ba objet yooyu mu ñëwaat mais balaa muy ñëwaat foog ñu organiser ko faaw ñu waxtaan si mm-hmm. voilà si ni muy ñëwaatee sax dinañ ko mais am na lu mm-hmm. tàmbalee ñëwaat parce que euh, président Emmanuel Macron bi mu demoon sa Burkina Faso am ay yu mu si yëkkati si restitution euh, patrimoine yooyu noonu gis neen ne at wala ay weer di leen rek. Mhm. Sénégal jot na jaas mhm. euh, yi. Euh, bu El Hadj Omar Foutiyou Tall bu El Hadj Omar Foutiyou Tall. loolu ndax yow pour yow. Mhm. ab avancé la. wala ndax war pour yow war nañ mën a gën a baral a euh, jéego yi. war nañ ko gën a mën a baral liix na lool loolu mooy li ñëpp seetlu lu ñëpp wax parce que bu ñu xoolee ñoo ngi cee objet à peu près de quatre-vingt-dix mille objets boo si delloo benn wooyu dafay mel ni nga jël ab puso sànni ko ci géej du dara waaye la may wax mooy. ñoo ngi avancé parce que faw ñu ne ci yoon bi pour ñu mën a yegg ci objectif ba ñu bëgg mhm. léegi tubaab yi nangam ñoom jël nañu tey nanguñu delloo dara parce que delloo nañu Sénégal benn sabre euh, tey bës gi ñu ne nii président Patrice Talon mooy président bu beneen ñoo ngi ko recevoir Élysée pour finaliser vingt six objets yi nga xamante ne nii euh, France bëgg na ko delloo beneen fii ak ay fan yu néew wala ay ay weer yu néew. France dina delloo Côte d'Ivoire mais question yu si ndax delloo la boobu dafay sax wala ndax delloo la boobu delloo symbolique rek la après ñoom ñu nanguwaat. voilà question bu pertinente ñun tey li ñu wax mooy il faut ñu génn ci delloo symbolique yooyu booy delloo da ngay delloo dëgg nit ki la moom parce que nga euh, nasaraan dañuy restitution restitution mooy nga delloo nit ki la mu moom donc tey lii nga xamante ni ñoom dañu koy delloo du ñoom ñoo ñu war a wax saay man de jël naa sa téléphone bi xaaral ba ma pare ci ma delloo la ko déedéet xam naa ni téléphone bi amal na ma ah, ah, téléphone bi amal na ma njëriñ yow li nga moom yow yaa war a toog saa nga organiser wu xool man nangam ak nangam laa war a def jéego yi laa war a teg ngir nga delloo ma li ma moom ñun tey suñu ONG suñu combat loolu la dañu bëgg a organiser bépp pays africain bi nga xamante ne nii amoon nga say objet yu nekk ci bitim réew ñu jéem a xool dajale société civile bi dajale état africain ak état européen yi te loolu am nay jéego yu ñu ci jot a def am nay président yi ñu gis ci àdduna bi gis nañu Nations Unies gis nañu UNESCO président africain ñu jot a léegi faaw ñu wu toog waxtaan tant que waxtaanuñu du ñu mën am lu tubaab bi di wax une vision générale de cette restitution tey benn dëkk dina jot parce que Allemagne bi bi Emmanuel waxee 2017 dafa bëgg ñu dajale conditions yi tax ñu mën a restituer mm-hmm. Allemagne moom euh, septembre bii passé signé nañ convention ak Nigéria pour delloo ko une centaine d'objets xam kooku génn nañ ci restitution symbolique ñoo ci vraie restitution. Mm-hmm. donc tey li ñu bëgg moom mooy ñu ñu xool parce que faudrait pas que ñu créer injustice après ci restitution bi ñëpp war a seen i objets. pour loolu pays africains yi foog ñu sensibiliser leen ñu waxtaan ak ñoom ñoom it ñu xam ne lii am na ay koppar yu mun dugal ci dëkk bi. du sax ay objet kese. léegi yaa ngi koy mais si yan anam lañ ko lañ ko war a defee aussi ndax loolu waxtaan am na si wala ndax waxtaan amagu si. tey bu ñu xoolee dëkk bu ne dafay waxtaan ak jegeñaale moroomu dëkkam tey loolu moo am France moo ngi waxtaan ak Sénégal parce que am nañ li ñuy woowee relation bilatérale bu forte. Mhm. moo ngi waxtaan ak Côte d'Ivoire parce que war na delloo Côte d'Ivoire moo ngi waxtaan ak Bénin mais France yore la yeneen dëkk ay ay objet Euh, Belgique yoroon na Congo ay plus de cent vingt mille objets yoroon na Nigéria ak yeneen yeneen dëkk léegi man ñun lu ñu wax ñun suñu ONG lu ñu wax mooy nañu fexe ba africain yépp dajaloo pays africain yi président africain yi ak société civile africaine bi woo ñooñu nga xamante ni ñooy président européen yi ñu xool sama gars yi kaay la ñu day ñu waxtaan ci biir waxtaan boobu la ñuy fexe ne ah Felwine Sarr mii di sénégalais ak Bénédicte Savoy benn euh, universitaire bu nekk la parce que rapport boobu moo ñuy xaymal ñaata objet ci àdduna bi la tubaab yi yor ci ñun moo ne par exemple Belgique yoral na nangam ak nangam ak nangam ñaata la ñu war tey ñun en tout cas li ñu France yoral mën na quatre-vingt-dix mille objets France mooy li mu yoral li mu yoral Sénégal li mu yoral non pas Sénégal li mu yoral Afrique Afrique yor mën na quatre-vingt-dix mille mhm. Belgique yoral na Afrique lu mot cent vingt mille yoral na aussi c'est des c'est de milliers d'objets yi nga xamante ni yoral nañu ko léegi ñun la ñu wax mooy nañu fexe ba restitution boobu ñu organiser ko permettre ñu ñun ñu tabax ay musées yi nga xamante ni ñooñu bu ñu ko delloowee parce que loolu dafay dafay infrastructure la. mais mais infrastructure la. mais tamit est-ce que amul euh, leneen lu laxu si par exemple. bu mm-hmm. France delloowee la mu la mu la mu ñoral yëpp. Mm-hmm. Belgique def noonu. mais mm-hmm. ñoom est-ce que dinañ amati ay touristes yu ñëw foofu ngir xool. voilà est-ce que nekkul tamit loolu la ñuy moo tax. ñuy ñuy ñuy teen defal tuuti. gis nga boo dégloo Sénat français le Sénat français bi Emmanuel Macron ne dafa bëgg a delloo objet yi Afrique gars yi dañ ko li nga xamante ne tey mooy mooy mooy suñu sutura. nga bëgg jël ubbi boîte de Pandore bi jox ko ñi ñu jël ko mais kon ñun jeexal nañ tey les premiers protagonistes ñi nga xamante ne ñooy xeex Emmanuel Macron ci discours am boobu mooy le Sénat français mooy deuxième hémicycle hémicycle bi nga xamante ne dañ fay voté dëkk bi ñooñu dañu ne du si daal léegi ñoom lu ñu proposé mooy nañuy def fexe ba am benn comité restreint comité restreint boobu dëkk bu bëgg ñu restituer ko rek benn objet ngay wax ñu jël objet bi càmbar ko étudier ko waxtaan ci loolu ça va prendre cinq ans xam nga loolu on parle de centaines de milliers d' objets. bu fekkee objet bu ne dañ ko war a restituer bu ñu ko war a restituer faaw mu jaar euh, Sénat ñu waxtaan ak nangam na loolu du dox léegi ñun africain ñoo war a jël suñu responsabilité jël suñu patrimoine suñu destin de notre patrimoine en main fexe xool nu mu ñëwaatee mais ñëwaat bi du doon ñëwaat force lépp ci waxtaan la jamono ju ñu toll nii dañuy dépassé ay xeex ak saaga tey ñii suñuy partenaire lañ mënuñu développé wu sans ñoom ñoom mënuñu dem sans ñun te loolu xam nañ ko parce que gis nga gis nga Diallo boo xoolee en 2050. xaaju population wu àddina bi Afrique lay doon donc am nañu doole dëgg dëgg dëgg bi nga xamante ne dafa nar a ñëw léegi mën man lam leen wax mooy tey am ngeen occasion pour waxtaan. dee leen ñëw Afrique ñuy waxtaan ak ñun mooy forum patrimoine africain bi ñu bëgg hmm. organiser léegi bu ñu ci ñëwee ci la ñuy mën waxtaan parce que en 2050 du ñu waxtaanati mais yéen en tant que ONG waaw est-ce que yéen saay seen loxo dina jote euh, hmm. par exemple yéen li ngeen di wax nii hmm. euh, ay décision la te ay état noo ko war a jël euh, donc yéen plaidoyer ngeen mën a def sensibilisation ngeen mën a def est-ce que seen loxo dina jote si njiiti réew yi parce que essentiellement bu nekkee fii Afrique ñoom ñooy li si ëpp solo ñoom ñoo koy def xalaat bi si ñoom lay jig wala boog jëf ci est-ce que njiiti réew yéen a ngi nas ay waxtaan ak ñoom ak tam ñoom bu nekkee am na. Mhm. nan la ñuy euh, déggee li nga leen di wax ñoom. Mhm. waaw gis nga wax bu am wax question bu am solo nga posé gis nga tey rôle ONG wala rôle société civile dëgg dëgg dëgg dëgg mooy identifier ay problème wala xëy na par exemple lii problème la suñu dëkk te war nañ ci mun indi solution boo defee loolu bu pare da ngay fexe dem ñun mënoon nañu yem rek bind projet bi ne ah nangam kat problème la état Sénégal wala état africain rwandais et cetera lii la ñuy proposer pour solution. ñun yamuñu ci am euh, c'est-à-dire que euh, bind problématique bi dañoo identifier problématique bi dem seeti ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci sujet bi ba pare dem uti ñu financer projet bi donc tey ndam la ci Sénégal ndam la ci bépp dëkk africain bi nga xamante ni yaa ngi nar a organiser événement bu réyee nii bi nga xamante ni bépp président africain dina ñëw sa dëkk ñu dégg sa dëkk ci lu positif ñu dégg sa dëkk ci li nga xamante ne ni mooy suxat culture am parce que exemple ngay doon après ci Afrique yaay doon premier ko def Sénégal Léopold Sédar Senghor naam defal na ko li ñuy wooyee FESMAN en 1966 mooy première action politico-culturelle bi mu def donc tey ñun li ñu bëgg mooy Afrique amaat dynamique boobu noonu Afrique amaat euh, c'est-à-dire que repère yooyu parce que loolu gis nga moo tax tey ñu nekk en perte de vitesse ci affaire yu bëri suñu ndaw yi foog ni leneen mooy réalité alors que ñun on est on a on a une richesse extraordinaire ci suñu dëkk. ndax njiitu réew ñu leen di dégg. waaw njiitu réew yi xam nga aussi njiitu réew yi ñun dañuy pour expliquer leen lan lañ ci mën a gagner yaakaar lañ ci mën a am. parce que du moment où pour man gis nga tubaab bi dafay ne euh, dafa am dara lu nekk ci persévérance li nga xamante ni dafay force forcer destin tey ñun on est convaincu dañu am dañu am euh, yaqin ni li ñuy def nii amal na njëriñ Afrique te reconnaître nañ ko ci àdduna bi léegi li ñu mën ñëw mooy ñëw ci pays africain yi am nay am na chef d'état yi ñu woo yi nga xamante ni tey bi ñu defee suñu plaidoyer dem nañ fépp ci àdduna bi woon nañ ñu tey xam naa ne dinañ kontaan lool pour organiser première édition du africain bi man en tant man en tant que doomu réew mi man ci école publique yi laa jànge jànge naa fii Sénégal voilà tey li mu bëgg mooy fexe ba lii ma ñëw teg ko ci dëkk bi dëkk bi yëpp njëriñoo ko ñu doon un exemple tey en Afrique tey loolu mooy xeex dim ma wax ndax eh, jot ngaa gisante ak le président Macky Sall waaw wala déet mhm. euh, boo gisante wala moom ña nga jot a gisanteel mhm. est-ce que ñoom euh, jox ne la une oreille attentive comme ni nga koy waxee si tubaab est-ce que mhm. am nga si yaakaar ne euh, Sénégal taxaw na taxawaayu koo xam ne nii bëgg na daloo premier forum bi ngay wax nii waaw gis nga xam nga boo ñëwee ci dëkk am am benn projet nga nekk citoyen parce que ñu ñëpp ñooy am citoyen yëpp ay am da ngay fexe gisi ministre yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk mbir yooyu ñun bi ñu ñëwee Sénégal effectivement c'est-à-dire que bi ñu egsee ak suñu projet bind ko euh, càmbar ko c'est-à-dire que def ci xam-xam bu bu profonde di gis dem nañ gis ministre yi nga xamante ñoo ministre de tutelle yi toppatoo loolu expliqué nañ leen loolu wax nañ leen lan la Sénégal mën a am te na am nangu nañ ko comprendre nañ ni lii projet bi nga xamante ne dëgg dëgg dëgg kat lii bu ñu ko gisee bu ñu ko defee Sénégal dina am benn dina renforcer politique extérieure bu Sénégal par rapport ak gisaguma ko gis naa ñu muy liggéeyal ñëpp ñi nga xamante ni ñooy euh, liggéey ci mbiru culture tey li ñu mun mooy proposer un président de la République kenn du ko contraindre da ngay li nga mun mooy nga proposé ko. Mhm. nga ne ko ah man de bu doon sama sago ñu def ko fii waaye tamit dafa am li nga xamante ne nii projet bi Afrique yëpp ko moom. tey ñun souhait c'est un souhait parce que conseil d'administration bu dajee. Mhm. gis benn dëkk bi nga xamante ne nii euh, dafa proactif ci démarche bi ñun l'idée mooy Afrique na gagné. mais en tant que Sénégalais li ngay bëgg mooy nga ràcc jëmale sa kanam. Mhm. waaw d' euh, si wàllum euh, financement. Mhm. Euh, parce que mbir tamit yi sànq yaa ngi koy junj financement ñan noo ñan nooy ñan nooy financé mbir waaw gis nga xam nga projet bi particulièrement dafa am ñi nga xamante ne ni ñooy suñuy partenaire historique à bien des égards ci ci anam yu bëri tey partenaires yi nga xamante ni war nañ liggéey ak ñoom yooyu notamment question bi parce que question bi dafa dajale Union européenne ak Union africaine. d' accord mhm. donc pays Union ñoom ñoo war a dajaloo pour ñu fexe nañ ko financer. union européenne aussi dafa daan li nga xamante ni am na fonds bi ñuy woowee fonds union européenne union africaine cest à que loolu fonds boobu pour participer a financer li nga projet yi nga xamante ni dañ koy def Afrique loolu war nañ ci dugal seen loxo parce que dafay renforcer suñuy diggante parce que ëllëg dinañu soxla lool bu loolu jàllee am nay mission yi nga xamante ne nii comme ay agence française de développement ay yeneen entités yi nga xamante ni ñoo ngi fii pour renforcer développement wu dëkk yi ñooñu dañ leen seeti. mais pays africains ñoom ñoom duñu participer. pays africains dañuy participer parce que ñoo koy organiser notamment bien sûr pays africains ñoom ñooy les premiers participants. ñoom ñooy li jubluwaay laaj boobu mooy. Mhm. bu nekkee mbir mbir mi euh, jubluwaay mooy le patrimoine mhm. africain dellu si Afrique. Mhm. bu nekkee ne a def seen xam nga loolu évidence la bu fekkee ñëw nga ci dëkk nga war a organiser lu toll noonu yu yaay doon pays hôte yu yaay gën a hmm. investir yaa ci gën a dugal sa koppar koppar wala wala wala accompagnement hmm. wala ressources humaines ak yooyu dëkk yii di organiser ñoom ñooy d'abord les premier investisseurs parce que ñun si ñu liggéey mooy lan mooy expliquer leen gis nga lii de boo leen ko defee di ngeen am tel et tel et tel retombée économique donc dëkk yi ñun li ñu war a def mooy sensibiliser leen wan leen benn relation wala fil conducteur bu leen di permettre leen ni lii am na koppar dëgg-dëgg si ne te création d' emploi yi ngeen di wax emploi des jeunes et cetera jeunes yi mën nañ ci gis seen bopp. lan mooy jubluwaay forum boobu nga alors jubluwaay forum bi ñaari problématique la soulevé nañ ko waxtaan nañ ci hmm. problématique bu njëkk bi mooy ñu fexe ba ñun ci list boobu nga xamante ne mooy liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ñu fexe ba Afrique gën ci pesé tey 9 pour cent la ñuy pesé ci liste boobu noonu li ñu bëgg a mooy ñu fexe ba buñ ci amee plus de patrimoine yu ñu classé dinañ am koppar gu bëri gu dugg si suñu dëkk yi ñu fexe ni ñu ko entretenir gis nga patrimoine yooyu buñ ci amee lu bëri touristes yi dañuy gën a ñëw si suñu dëkk organisation mondiale du tourisme def na ab communiqué expliqué dëkk yi nan ngeen mën a amee koppar ci loolu. Hmm. dëkk bu ëpp touriste mooy ëpp économie. dëkk bu ëpp dina permettre ñëpp restaurateurs yi hôteliers yi compagnie aériennes yi c'est-à-dire que ñii di jaay euh, pétrole beeg yooyu yëpp essence bi ñëpp dinañ ci gën a gis seen bopp. Hmm. léegi beneen aspect bi mooy restitution bi restitution bi dafa am aspect identité mooy li nga xamante ne mooy suñu mbaax mooy suñu mooy suñu suñu ADN tey jeunes yi dañu soxla. am repère xam fi ñu jógee xam li nga xamante ni lan mooy mooy seen mbaaxi maam ñu fexe ba langaamu ci et xam loolu lan la leen mën a indilee ay koppar mhm. ñun li ñu bëgg a def c'est-à-dire tey am na côté dignité mais am na aussi côté koppar liggéey bi ñu nekk di def nii. d'accord sommet Afrique France bi weesu tamit. Euh, président euh, bu France mhm. Emmanuel Macron. Mhm. moom jëlaatoon na engagement bu naa bu nekkee mën naa kaa waxee noonu. engagement yi yow yaa ngi fa woon. Euh, lan moo nekkoon lan ngeen doon sàkku dëggantaan ci moom. ak diggante boobu ak léegi gis ngeen mu desee jéego. waaw euh, gis nga bi ñu defee sommet boobu noonu man invité woon nañ ma dem naa fa interpellé naa bu France pour laaj ko euh, négam sommet bu tey bi c'est pour xayma discours bu bilan bi mu defoon ci ca Ouagadougou mhm. lu tax wax ñu ko seen restitution bi ci laa kan ak profité ko man sama projet bi ma bëgg a def ci Afrique suñu ONG projet bi mu bëgg a def et puis mu gis ni cest loolu amal na ko solo te ànd nag moom li mu bëgg a def Afrique mu ne moom dina si doon euh, dina si doon suñu ambassadeur au niveau de l'UNESCO te dina porter sujet bi deux semaines après ñu invité ma benn événement bi nga xamante ni mooy objet bi parce que il y a deux semaines de cela am na uh-huh. événement bu ñu organisé pour restituer euh, dëkk euh, Bénin ay objet am donc demoon naa fa et yaakaar naa ni laa dañuy avancé am na pas bu ñu def ñoo ngi avancé mais yéex na lool léegi li ñu war a def mooy ñu organiser woo leen ñu ñëw bu fekkee at bu nekk président européen yi ñoo ngi ñëw Afrique président africain ñoom seen biir ñoo ngi daje c'est-à-dire que loolu dafa mun créer ay synergie dina tax ñu gën a xamante suñu biir dina tax pays européens yi xam réalité yi nekk suñu dëkk te ñun plus ñuy développer suñu culture plus ñu gën di mën a développé wu. am na tamit euh, peut-être fenn foo xam ne nii euh, moom mooy tax mbir mi ni nga ko war a porté porté wu ñu ko. Mhm. mooy euh, engagement citoyen yi nga xam te ni moom moo si war a am. Mhm. population yi ñun bi ñu war a wane si lool. Mhm. loolu mel na ni lu tumranke la. est-ce nekkul looloo tax tamit mbir yi tardé parce que. bu askan wi yëpp jugoon tey. ñu def benn manifestation tey. ne dañoo bëgg suñu moomeel ñu delloo ñu ko. loolu dina doon mettre guillemets. Mm-hmm. est-ce que nekkul moom mooy gën a yéexal mbir oh, dëgg la li nga wax dëgg la c'est-à-dire que moo tax tey ñuy def exercice yi ñuy nekk di def moo tax euh, c'est-à-dire que ñu dem fépp ci àdduna bi déjà di expliquer ñu war a participer c'est-à-dire que tey il faut ñu créer ay exemples yu bees parce que ni ñuy doxee nii ni ñuy doxee nii ñu nekk di doxee ni gars yi war nañ war nañu gën a mën a jàppale suñu ndaw pour wax leen la ñu moom pour wax leen seen valeur pour wax leen li nga xamante ni war nañ ko mën a def donc effectivement war nañ gën a mën a sensibiliser et je pense que bu ñu amee collaboration ak médias yi nga xamante ne ñooy jàppale pour pour pour jàllale information yi dinañ jeunes yi dinañ gën a xam li xew dinañ gën a xam la ban rôle la seen patrimoine am ci ñoom dinañ xam aussi seen maam yi ban valeur la ñu parce que suñu maam yi duñu ay duñu ñoo def li nga xamante ne tey adduna bi yëpp a ngi dem ci ci réew tugal yi pour seetaan ko. mais gis ne aussi am na ba tey ñuy nuri benn complexe. Mm-hmm. Euh, si li ñu doon si seen der bu ñuul ak nangam. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, loolu pour yow euh, ndax lii mooy moo sooke loolu. maanaam ñàkk xam suñu bopp bi. wala ndax pour yow dafa am yeneen yu yu ko waral. waaw loolu la gis nga gis nga pour man yooyu yëpp benn ensemble waaye tey pour fexe ba loolu dëñ waruñu mënuñu ñëw damat yi lii xew ba pare il faut ñu def une contre proposition. wan jeunes yi ni am na benn exemple de paradigme am na leneen li nga xamante ne yoon boobu bu ñu ko jëlee dinañu gën a xam seen bopp te gën a xam sa bopp mooy aussi nga jàng ko mooy ñu la koy wax mooy ngay gis ay nit yi nga xamante ne nii ci sa xeet lañu bokk ci sa dëkk lañu bokk ci sa koñ lañu bokk ñoo ngi dem di teg jéego yi nga xamante ne tax na euh, manque ñu res manque ñu respecté seen bopp ñoo ngi gën a gëm seen der bu ñuul ñoo ngi def ay jéego yi nga xamante amuñu benn complexe pour waxtaan ak benn président ci àdduna bi tey man c'est-à-dire que euh, dama ñëw pour waxtaan ak samay samay frère ak samay sœur parce que maa ngi dem fépp ci àdduna bi di waxtaan ak président yi di waxtaan ak chef d'état yi di waxtaan ak les décideurs mais ñooñu bu fekkee li may def peuple bi laa koy defal bu fekkee li may def samay frères ak samay sœurs laa koy defal tey foog mu ñëw di waxtaan ak ñoom donc je pense que ñun ñëpp tey war nañ di mën a ñëw di waxtaan nii ci wolof di waxtaan ci tukulóor di waxtaan ci bambara ci soose et cetera pour que ñi nga xamante ne ñoom la ñu bëgg a liggéeyal xam li ñuy dox. mooy implication communauté locale. si beneen fànn. Mm-hmm. gis nañ fi. Euh, prix concours bi nga xamante ni moom lañ génn ab sénégalais moom moo ko jël. Mm-hmm. di Mohamed. Mbougar mm-hmm. euh, Sarr. Mm-hmm. Euh, en tant que sénégalais. ab sénégalais ñu koy tudd si loolu mu jël ko. si ñu bëri di ko kañ si si àdduna bi yow nan nga koo gisee. waaw gis nga xam nga man dama doon patriote man bépp sénégalais bu ma gis ci àdduna bi damay dem damay tukki fépp ci àdduna bi. te da ngay dajeeg sénégalais yi dañu am ay talent yu extraordinaire bu fépp bu ma gis ñu tudd sénégalais ñu jox ko raaya da ciy kontaan. mooy kontaan bi may am ci loolu. donc loo mënoo lu dul félicité mënoo lu dul am sentiment de fierté ci loolu parce que loolu xam-xam la aussi. Mm-hmm. parce que mën bind du dara li nga xamante ne nii dafa. ba pare la. waaw ci wàllum culture la donc tey li ñu mun lu dul félicité ko lu dul kontaan ci prix boobu mu am et puis ñaan yàlla aussi euh, mu am ay retombées yu positives ci suñu dëkk. donc loolu la ñuy xaar. polémique bi si judd yëpp ndax comprendre nga xam nga man aussi euh, je me lu tubaab bi wax je me méfie de de me mettre dans le jury de thèse de quelqu'un bi nga xamante ne nii xaw ma la mu bind. Mhm. c'est-à-dire xaw ma ko li ma xam mooy tey gis naa ñu jox ko raaya te du raaya gu ndaw li ma mën mooy à mon humble avis féliciter ko et xam ni lii lu am solo te dégg nañ suñu dëkk tey adduna bi yëpp di ko di ko en termes de visibilité lu am solo la. maintenant euh, du ma ci détails yooyu parce que liiruma ko pour être honnête ko lire. dinaa ko lire bien sûr. Mhm. parce que xam-xam dafa am solo et puis foog ñu gëstu foog nga xam nit ku nekk li mu bind nga xam li nga d'accord ak moom ak li nga d'accordul ak moom. yow euh, am na tamit sur le le nominé. mu ne mhm. la may nga wax si euh, parce que aussi. Euh, mhm. beneen fànn la boo xam te ne aussi benn ay doomu Sénégal lañ siy tudd. ku mel ni yow. waaw gis nga combat bi may mën a nii moo tax y a quelques mois de cela union UNESCO ak union africaine ràññee sama liggéey ne dañuy fexe ba instaurer li nga xam mooy dialogue intergénérationnel mooy c'est-à-dire que ndaw Afrique. waxtaan ak ñii di jiite Afrique pour xool na la ñu mun fexee ba teg ay solution yi nga xamante ni dina tax suñu réew yi jëm kanam bi si njëkk mooy nomination bi mu nommé dañoo tànn juróom-benn ndaw ci Afrique yëpp ñu boole ma ci mu doon ndam lu rëy pour Sénégal tey bu fekkee tànn nañ doomu Sénégal pour mu dem wax ak ay jiitu réew Afrique mhm. fexe ba xool nan la ñuy développé suñu continent dëgg dëgg dëgg lu am solo la beneen aspect bi mooy dañ ma nominé en tant que best African young leader ci li ñuy woowee African Talent mu doon fii ci Abidjan suñu suñuy dëkkandoo donc loolu le 9 décembre aussi bëgg nañ vraiment ñu voté massivement ñun ñëpp sénégalais yëpp voté parce que ndam la ñu indi ndam li fii et puis xam ne aussi persévérance moo am solo ci àdduna jeunes yi tant que ñoo ngi persévérer li ñuy def dinañ leen reconnaître parce que xam-xam lépp ku wéeru ci xam-xam rek perto lépp li ngay def boo ko wéeru ci xam-xam mhm. doo perte dara donc vraiment on veut que ñëpp voté ci ñu indi victoire bi Sénégal et ñu fexe ba li ñuy nekk di def dina tax jeunes yi ñu gën leen am Alassane amoon naa mbégte loolu dalal si euh, tolluwaay ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñu doon teewlu. merci beaucoup maa ngi tàgg suñu euh, seen auditeurs yëpp. Mm-hmm. et puis euh, rafetlu seen seen seen liggéey bi xam ni ay ndaw ñu ñëpp on est des jeunes donc mun nañu comprendre et puis on peut se faire passer le message on peut se de la force donc vraiment kontaan naa ci invitation bi lool et merci beaucoup. jërëjëf euh, euh, Sali Alassane euh, Thiam amoon naa mbégte lool dalal la may fàttali ne yaay njiital ONG Afrique Patrimoine moom amoon mbégte lool dalal la pour waxtaan si wàllum aada yi yu ni mel noonu laa amee woon mbégte jàkkaarloo ak yéen sant ak gërëm bu baax a baax équipe technique bi jàppoon si liggéey ba mu yem dig leen daje suba incha allah jaa jëf.